amal démb ci am ndajeb conseil des ministres bu ñu doon amal nag le sol yëglekaay ma ngay xam ne ne daal wàllu jàng meeg jàngale mi fi mu toll nii kilifa yu yees taxaw nañu ci nag fas yéene cee indi ay coppite bokk na ci delloowaat jàng moomee valeur yi nga xam ne rek moom lañ ko xamee woon lu jëm ci wàllum restriction bu programme paquet yi waaye fexe nag ba bàyyi xel lu jëm ci wàllu langue nationale yi lu jëm ci généralisation bu enseignement wu anglais nag ñu daal di xool nu ñu ko mën a dugalee ci wàllu élémentaire bi développement du numérique ci wàllu école yeeg digitalisation intégrale du système éducatif bi bi loolee lépp nag kilifa yu Sénégal bëgg nañ caa def taxaw seetlu planifié itam nag lu toll ci dirub juróomi at lu ñeel recrutement yi nga xam ne rek moo soxal yi ci matière yi nga xam ne rek moom la ñuy ba jële lii di abri provisoire yi nag loolee lépp kilifa yu Sénégal waxtaanee nañu ko niki démb Sud Quotidien faylu ko ne moom kay danañ indi ay yeesal nag balaa yàgg dara ci wàllu jàng meeg jàngale mi ngir valeur yi nga xam ne rek moom lañ ko xamee woon ñu daal di koy bañ a ñàkk waral ba yëglekaay bi ne jomaay ma ngay joxe caabi projet yi yees yi nga xam ne rek moom la ca bëgg a taxaw taxawal vox lii ne fi mu toll nii kay nag ci càmbar dëggantaan la ñu toll jëm ci wàllu jàng ak jàngale ci Sénégal yéene kaay bi ne jomaay ma ngay sàkku nag ñu daal di càmbar système éducatif bi fexe ba jëlee ci l'école yi jikko yu yàqu yi nga xam ne rek lañ ci tàmbalee nemmeeku yéene bi ne moom président jomaay fay jamono ji nag ma ngay sàkku ci limaana jëwriñam di Ousmane Sonko mu daal di defub taxaw seetlu nag ci financement yi nga xam ne rek moom la ñuy dugal ci wàllu jàng meeg jàngale mi fas yéene nañoo amal ay gëstu itam nag ngir jéem a jooyantiwaat nag lii nga xam ne mooy ubbi gi ñuy ubbi ay école privé ak lu jëm ci wàllu tarification scolarité yi le temps moo yëglekaay ni ci conseil des ministres bi ñu doon amal nag ca la kilifa yu Sénégal jëlee dogalu def taxaw seetlu ci wàllu jàng moomee nag ngir saytuwaat ko ba lépp jaaraat ci yoon l'observateur na ci mënti doon daal lii nga xam ne moo di sabar ak simb ak loolee di pecc mu doy waar mi nga xam ne rek dañu koo xewal ci biir l'école yi lépp daat nañ koy tere enquête yëglekaay addu bi nga xam ne rek moom la Amadou Ba na ma amalaat ci wàllu politique ngay dund lu jëm ci wàllu guerre de positionnement waaye ko benn yoon muy tontu mbaa mu yëkkati ay kàddu moom daal pàtt bi rek la maye ginnaaw bi ñu ko tabbee mu nekkoon candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yi nag fi mu toll nii nag liggéey bu am solo mi ngi koy xaar moom Amadou Ba yéene kaay bi ne moom Moustapha Niass ak Amadou Ba nag ña ngay waajal ab alliance boo xam ne rek dañoo bëgg woon ginnaaw Benno Bokk Yaakaar allié bii di Cheikh Omar Sy nag moom la muy sàkku ci Amadou Ba mooy mu daal di tourné nag lépp loo xam ne moo fi jot a jaar te amal ab taxawaay beneen bu yees l'info yëglekaay des ba tey ci wàllum politique daal di àddu jëmale nag ci taxawaay bi nga xam ne rek moom la waa gauche bi na ma taxawee jamono ji bokk na ci mbooloo waaye tamit defaraat seen taxawaay nag ci dooraat nag xeex bi nga xam ne moom lañ doon amal loolee nag mooy def yi nga xam ne ma ngay xaar gauche sénégalaise bi ay alliance contre nature ak régime libéraux yi nga xam ne rek ñoom ñoo jotoon a jaar ci réew Sénégal di ru ñaar fukki at gauche boobee nag taxaw nañu fi mu toll ni nag ngir lépp loo xam ne rek dañ koo ñàkkoon ci seen doxalin ci wàllu politique ñu fexe koo tagaat loxo xëyee tey ji nag lu jëm ci commission ad hoc bi nga xam ne rek moom la ñu war a saytu nag ñeel wàllum rification des titres ak occupation yi nga xam ne rek moom moo soxal nag ancienne ak nouvelle dépendance yu domaine public maritime bi nag bureau bu assemblée nationale jamono ji ma ngay opposé wu ngir nag lu jëm ci dalal kii di Ousmane Sonko Amadou Mame Diop jamono ji nag ma ngay bañ ngir dalal ay représentant nag Guy Marius Sagna merce bay futu daal di tuumaal bureau bu assemblée nationale ne dañoo bëgg a saboter liggéey boobee nga xam ne rek moom la kilifa yu yees yu Sénégal bëgg amal Sud loolee ci déclaration politique générale bi nga xam ne rek Ousmane Sonko mi ngi koy waajal moom premier ministre ma ngay joxe rendez-vous yàgg dara l'observateur xëy àddu tey jii nag ci teg loxo gi ñuy teg loxo wàllu drogue fii ci réew Sénégal yéenekaay bi ne nag fi mu toll nii nag yëf yee ma ngay tàmbalee am ay risque nag ndax boo moytuwulee nag dina dem ba gàkkal image yu Sénégal fi mu toll nii nag ñu ngi ñuy bëgg classé ci dëkk yi nga xam ne rek mooy dëkku narcotrafiquant yi ci biir Vox Populi nag kii nga xam ne rek moo di docteur Mbaye Ndiaye di directeur général bu douane moom nag ma ngay xam ne nii ci ndimbalu kilifa yu Sénégal nag fi mu toll nii ñu ngay gën a yokk kaaraange gi ci biir frontières yi lu jëm ci wàllu faux billet wàllu drogue beeg faux médicament yi loole lépp nag mën naa jur ay njeexital ci dundinu askan wi waaye tamit nag mën naa indi ay gàllankoor ci koom geek ni mu war a suqalikoo fii ci réew Sénégal am na ñu ay njàqare nag waaye du teree danañ boole suñuy doolee amal engagement bu am solo ngir lu jëm ci wàllu trafic de drogue bi nag ñu daal di ko fiy xeex ngir mu daal di fiy jógee addu leneen ci yëglekaay yi mu bokk ci nomination yi nga xam conseil ministre yéene cabinet njiitu mi Jomaay Fay nag ma ngay wéyal mbale mi ca Senelec ak ca Petrosen ca Sises ak ca Azer foofee fépp nag jëlee nañ fa kilifa ya ko jiite woon Tafa Tobi Gueye moom moo jiite jamono ji nag kër googee di Senelec Aline Gueye moom mi nga xam ne rek expert comptable la ñu daal di koy nommé nag mu nekk DG bu Petrosen Justin Correa nag moom moo jiite centre international de commerce extérieur du Sénégal ab ndaw lu am ñaar fukki at ak juróom-ñeent nag moom la ñu dénk ngir muy doxal Azer Samb maison de la presse jamono ji bés bi la journée lu jëm ci xam ne rek moom lañ leen bëgg a fayloo ñoom entreprise de presse yi nag yéene kaay bi ma ngay xam le ni nag boobee nag du ngir ñu daal di koy fay waral ba Mamadou Ibra Kane nag moom ne faaw ministère bi ñu dénk wàllu finance nag mu daal di woyofal lépp li nga xam ne rek moom la ñu teg ci kaw groupe de presse yi si jamono ji nag taxaw nañu ngir dem seeta ji kii di njiitu mi ngir waxtaan ak moom jeexalee ko ak tàggat yaram les éco yëgle kaay àddu jëmale tey ji nag ci jongante bi nga xam ne war naa dox ci diggante Sénégal Sénégal ak RD Congo bu 19h jotee lay doon yéene kaay bi ne fi mu toll nii nag du yomb ci diggante gaynde yi ak léopard yi alin si ne lu dul yomb kay mooy nag jongante bi ñu nar a amal te Sadio du ci bokk waaye nag nañu yeneen i gaynde yoo xam ne rek mën nañoo am ci ñoom confiance Sébastien Desabre moom mi nga xam ne mooy coach bu RD Congo moom ma ngay xam ne nag ne bi nga xam ne rek moom la jiite yomb ñoo jonganteel waaye lu mu ci mënti doon stade yëgle kaay daal ma ngay xam ne ni askanu Sénégal fi mu toll nii soxlawuñu leneen ci gaynde yi lu dul ñu wutal leen ñetti point rek